international sénégalais muy kan bu lay jaar mu nekk suñu attaquant kamil dafa ñëw dugg deuxième mi mu libérer équipe am libérer dugal bi bu rafet moom bu lay jaar mu nekk naanan mun lu muy def dugal bi bu amul fenn moom bu lay jaar mu permettre équipe am gagner deux buts mu nekk lu baax si moom mi am na nii ci banc la jógee mu nekk remplaçant dugg rek dugal bii wu victoire loolu mu nekk lu baax si bu lay yaay boo xam na nii ndaanan la attaquant kaamil la tout moment de def différence te tamit def